bismillah feebar bi la day ah! dëgër na bopp de bàjje na ma ko ngemb le soleil yéene kaay ne en tout cas Abdoulaye Diouf Sarr de waaw daal di nay def nag bilan ñaari weeru feebar bi la ci Sénégal ndaxte mbas mi de ah nee na delluwul ginnaaw de déedéet dama ne la ci weer wi la de waaw téeméer ak juróom-ñeent fukk la ñuy jugee daal di tàbbi nag ci junni ak ñaar fukk ak ñeent allahu akbar laa ilaha illallah lu tolloo juróom-ñeenti junni ak juróom-ñaari téeméer ak benn de ci ay contact am nanu jeerug mars bi waaw lu tolloo fukki junni ak juróom-ñaar ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ay tas yoo xam ne kon réalisé nañ ko Abdoulaye Sadio Sarr ak waa këram kon yemuñ ca ndaxte nee nañu lu tolloog ñaar fukki ci ay bërëb yoo xam ne dee ci juróom-ñeenti région ci fukki région ak benn yi nga xam ne kon mbir mi laal la leen dee taxawal nañ leen di vingt sites waaw hydroxychloroquine gi nga xam ne ñu ngi koy fajee waaw ma def nag ay résultat dee te deful tamit nag ay effet secondaire kon kay waa kitin ji baax na waaw tribune yéene kaay ne jàpp ne musiba baa ngi dikk dee mardi di ñëw de Italie laa ilaaha illallah professeur Mamadou Jara Bey ah nee na lu tolloo ñaar fukk ak ñett ah ci ay kaayu garaaw fukk ak juróom-ñett yi de ñu ngi leen di faj nag fii ci Ndakaaru njaajël de la tasaare kon ci biir région yi lé enquête yéene gis nga jàngoro nag maanaam kon ak na muy màggee ci biir mi waaw jàngoro daal daa ba Touba def kër Touba waaw la sabab lu ni nag mooy waa Touba am na ca xam ne kon gëmuñu feebar ba boobee benn ñaar régal yi koo waaw am na ñoo xam ne ci daanu Touba googe xamuñu ko dëgg la Touba daal boo bëggee dégg dëgg ah mbira jaaxal na kilifee nag bala wax moom ah foofee nag maanaam la ñuy wàllaatee de waaye nag lobby bu am doole ñooy jàppale waa marché ba docteur Mamadou Dieng ah nee na gis nga tund wii nga gis ni ñi fi am jàngoroy corona yëpp waa Touba leen wàll Touba ñooy wàllaatee ar day taali waaw waaw bog soob li ne en fan de mbir mi daa yokk ba muy juróom benn yoon mar day taali professeur Moussa Seydi waaw di lambar kon ci biir dëkk bi lee mën nañoo jural musiba mbaaba kumba laa wax yéen kaa gi ne en ci boppam de daal dinay changé na kon feem changé na xeex de ah. waaw waaw parce que nag léegi ni ne dana fàcc fudul biir hôpital ngir sakkanal lu toll ñeenti téeméer ay lal angaaru pèlerin yi lée ujaaj yi ci Yoff waaw ak base aérienne u ba ca ak centre des armées bu géréw ge yi daal la nguur gi jàpp critique yéen kaa ne Macky Sall daal jàpp na ne nit ñi dañ leen a war a continuer fa ba ah. ne bi nee ne dañu ko yokk kon ba ñaari fan ci weeru juin laa la wax laa ilaaha illallaah ramas Moustapha Diakhaté ci réew mi quotidien waaw nee ramas bi le du saafara couvre-feu du saafara nañ leen nit ñi sur sa année en tout am dafa benn njaboot goo xam ne dee dañoo taxaw ak dëkkandoo yi waaw ne kenn du leen quarantaine wax mbarke rasuur lay waaw waaw benn maire toll na ci juróom-ñeent fukki at ak ñaar moo bopp lay def de bu sa bopp da doon mooc maire ba am corona ba konte ne kon ca marché occas ñëw ne dañ leen di quarantaine yaat ma faal sëtam la nee na d'accord naa ñu jël deretam ak lépp waaye xamal naa commandant bi ko maire bi du fi génn tey te du fi génn ëllëg même bu dee d'accord naa du fi génn ah, xeex ba jolli ba ñu gaañ fa benn gendarme laa la wax eh way samba de traitement si ko yéene kaay ca caaro yi ñetti mbaar waaw am na fa ay policiers yoo xam ne dañ leen a agressé dóor leen ba gaañ leen laa la wax maar day taali dañ doon topp ay gono yoo xam ne deux fa la leen fekk waa koñ ba songu leen léegi quotidien yéene kaay ne en tout fees na dell Médina Gounass Sigué juróom benni kaa Thiès moom ñay dox mel ne feebaruñu ca feebar foofu la wulee ñaay libération yéene kaay ne feebar bi kay ndakaaru njaay jajoob gi la dikk na toog sax woo a am ak yoof day ña a ca kanam mar di Italie waaye région de Dakar te Médina waaw ñoo ñoo jël kubba nag Médina jël bee ak 77 kaa la ilaha illallah gël tapé Fass Colobane ak Plateau Corona tamit kenn demul mu des ak Sébi Kotaan ak Diamniadio Dalifort ginnaaw raay sud Malika ak Medina Gounass ñoo ñoo ci suuf derkale tamit am na deux ak point E a Hann Bel-Air Patte d'Oie Yoff Golf Sud Wakhinane Nimzatt Bambilor yëmbal sud ak yëmbal nord waaye pesticides yi tamit de bomb la de ndekete bomb la de centre d'appel boobee bomb la docteur Cheikh Anta ci direct news waaw nee na Afrique ci boppam de mën naa dimbali boppam parce que Sénégal ci boppam kon wane na ko jàkkaarloo kon ak mbas mi moom Sénégal te benn ndimbal jógewul ca bitim réew Cheikh Anta wax ci direct news de évidence yéen a kaane en tout cas commune Mbao waaw maire ci boppam de Abdoulaye Pouye de daal dinay jébal nag poste de santé ya lu tolloo ñeenti ci ay ambulance ak 15000 masques très bien monsieur le maire yéeni kaa gi ne marché tëj nañ ko dee moo tax waa rapidos waaw nee taxawal nañ benn plateforme boo xam ne dee cliquer rek ngay def jënd cliquer ñu livrer la ko eh rapidos 24 kaa ne tëj bi nga xam ne tëj nañ ko marché dee commerçant ak industriel yi waaw naxarlu nañu ko dee parce que Omar Cissé dee waaw nee mënoon nañ ñoo bàyyi sax Ndiaye mais mais xoolal li ñu Karim Sall def jënd leen seeni produit plastique ñu jënd ko dédouané ko valeur u sept jàpp kon dix milliards la ilaha illallah fukki fan lañ ca teg ñu nangu suñuy marchandise eh, mu waay maa la ko kompolo d'état la Umar Cissé ne dañoo fas yéene xeex na te fu mu yem neex barke rasulullah léegi ko yéene kaay ne kaay ndekete dañoo créé waa beneen centrale électrique virtuelle mardi tali beneen contrat buñ gisati laa la wax Matar Cissé de ah lañ tuddati nag ci scandale boobee ak akillee cay akillee business la boo xam ne juróom milliards Sarr signé na ko 18 février 2019 une semaine ginnaaw ba ñu signé nag scandalu Akilee ba 186 milliards la ilaha illallah juróom fan laata élection présidentielle ya waaw waaw bii tamit ko contrat bee rek 10 ans la ñu ko signé ma dem ba sogte waaw nee nag fi ñu war a dem daal mooy négocier waat jubbanti waat nag lii ndaxte nag xam nga lan moo wóoru lu dangereux mooy koo xam ni bokkul Sénélec am accès ci exploitation Sénélec ca boppam last eh, licence dañ ko jox chinois yi té ña nga xam ne ñoom ñoo cay yëngu waaw weeti nañu nag waa gépes kale tu mal Alioune Ndoye te atéri sax né nañ Alioune Ndoye moo ne ci yoon l'observateur ne wallahi corona gi lé dimbali ne nak état bi dé ci santé 1 dama ne la santé ya ca gam ñaa jot dee lépp critique lépp taxaw fañ wara def stade ba terrain wu né école internationale africaine daanaka dañ ko bay santé ba ca Colobane yegg na terre terre bi ci bopom très express régional bi lé bi lay virus bi dimbali na wa état bi corona bi dimbali né leen ndax ñoom ñoo ne won avril lay taw ba légui ni lé terre ba nga ne yegg terre dawul Dakar Times ne météo de li ñu wax ah nee nañu nawetu ren bi nar naa bëri ndox de nawet bi nar naa bëri ndox lool <laughs> waaye nag ak lu ndox mi bari bari bari bari bari bari bari bari bari ndox mu ñuul mi di pétrole bi moom buñ ko fàtte mukk parce que suul gaz du ko tere xañ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree mën a la tëjal